mbokki julit yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu daaray cheikh ahmadul qadim bi ëmb daaray alquran bi ñu tudde mafatih al bichri ak franco arabe bi ñu tudde manbaul ulum si njiitul sëriñ alhaaji njaay seex ndindi ñoo leen di yëgal bisub alquran bi ñu baaxoo amal at mu jot ren mu war a doon dimanche fukki fan ci weeru juin 2018 ca daara ja ca tuuba ndaamaatu première arrêt ñaari Baye Fall ñoo ngi ciy woo ñëpp rawatina képp koo xamante si alquranu karim yitteel na la programme bis bi dinañ fa amal tari alquran ak njàngum xasida mu yéeme concours jeunes en herbe nañ fa amatam prestation ci wàllu karaté dinañ fa joxaale ay diplomatem muy certificat ñi nga xamee ni si génne nañu fa ci ñaari at yi ñu génn dinañ fa joxaale tam ay diplôme ci wàllu karaté muy ceinture noire première dan ñi nga xameen ci ñoo fa daan entraîné ba yeyoo ko bis bi nag Serigne Alhaaji Ndiaye Cheikh Ndindi nee na ma ngi ànd waa daala ji yépp di ko dara jaale Serigne Ahmadou Dieye Daali Ndiaye mi nga xamee ni si moo ko jàngal alquranu karim kon mbokki jullit yi xamee ni si xam-xam yi teel na leen bis baa ngi noonu moo war a doon dimanche fukki fan ci weeru juin 2018 ca daara ja Touba Ndaamaatu premier arrêt ñaari Baay Faal Serigne Alhaaji Ndiaye Cheikh Ndindi ak daara Cheikh Ahmadul Xadim di ko woote daara Cheikh Ahmadul Xadim jooju nga xamee ni moo ëmb daaray alquran mafatih al bishri ak franco arab manba al ulum ñoo ngi ci woo ñépp bàyyi wuñu kenn ku ci bëgg am lu gën a leer mën ngaa woote ci 76 683 54